jërë ngeen jëf mbokk yéen na Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafet lu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak bitim réew sénateur du jour dañ koy dore ak audio Adji Sarr ya nga xamante ne daal dina yëpp fuité loolu nag gannaaw conversation ba mu amoon ak kii di MC Niass moom Adji Sarr nag di fësal ci audio ba mbirum complot ba daal di cay lim sax ay personnalité yu bëri yoo xamante ni daal dinañuy laale ca mbir ma ci loolu nag mu mel ni gannaaw a si loolu daal dinay rek wuy ji woon ka nga xamante ne moom moo di juge ba ak yile ojo nga xamante ne MC Niass daal na ko koy jébal rek ci dossier Ousmane Sonko loolu nag daal di tax ba Adji Sarr sax daal di waxaat rek ne ki nga xamante ne moom moo di MC Niass daf ko bëggoon a takk rek ba noppi wax rek mu daal di laaj autorité yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca ginnaawam lu toll ci six cent millions de rek ñu ko ci kontam moom nag bis bu ko takkee ñu daal di génn Sénégal bu ko defee ñu daal di fàtte rek coowal aji sax ak Ousmane mu mel ni nag après loolu beneen audio daal di nay rek fuité tukkewaat ci waxtaan woo xamante ne moom aji sax daal na koy seq ak ki nga xamante ne moom moo di MC Niass ci loolu nag daal di na koy jébal rek ab liste boo xamante ne a personnalité la nekk tamit ay ministre d'état yoo xamante ne ñoom ñoo daal di nekk rek a ginnaawam moom Adji Sarr nag daal di nay lim ci bile audio bokk ba ñu bëri daal di dar seen gémmiñ rek ca liste boobu nga xamante ne moom Adji Sarr a di na koy lim bokk na sax ci daal wax rek ki nga xamante moom moo di njiital dem média bokk na ca ña nga xamante ne ah, ñoom ñoo nekk ca ginnaaw waaye tamit bokk ca ñay liggéeyal gouvernement ba ah, mu wuteeg loolu la nga xamante ne moom Bougane Gueye Dany mu ngi koy wane ah, bu ñu sukkandikoo ci audio bi nga xamante ne kii di Adji Sarr daal dina koy fësalaat rek ci digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di MC Niass mu nekk ay audio yu doy waar yoo xamante ne moom Adji Sarr daal dina koy wax rek ak personnalité nga xamante ne daal dina leen ci lim waaye nag ci dossier Adji Sarr ba tey sax ki nga xamante ne moom moo di Nabou Dash dal bu baax bax baax a ka nga xamante ne moom mooy layal aji sax di maître El Hadj Diouf ak kaddu ya nga xamante di toog ci télévision yi di ko wax moom Nabou Dash nag di fàttali rek kii di maître El Hadj Diouf di wax sax ne moom dañ ko jugé woon rek ndax viol boo xamante ne daf ko daal di defoon kon nag amul benn crédibilité loolu nag nekk ya kaddu Nabou Dash mu mel ni Ami Collé nag daal dina choqué wu lool ca vidéo ba a xamante ne Adji Sarr daal dina koy def moom nag daal di xàppi bu baax a baax def ab vidéo di fecc di wéy di rek. dund mbégte bu baax a baax loolu nag daal di jaaxal ñu bëri jamono ji nga xamante ne audio a ñu ngay a coowam ak Ousmane Sonko ba léegi leerul Adji Sarr di def ab vidéo di fecc loolu nag daal di tax ba artiste bi di kii di Ami Collé daal di am lu ko bett lool ci ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr Mati Trois Pommes nag mu mel ni kuy rek défendre Adji Sarr gannaaw nag Babacar Touré bu Kéwoulo invité woon rek ka nga xamante ne moom moo di docteur Alfouseyni nekk gynécologue ba nga xamante ne moom moo doon suivre sax Adji Sarr nag waxtaan wa nga xamante ne daal nañ koy séq ak Alfousseynou ak kaddu yi a xamante ne daal dina koy yëkkati rek a menaces yi nga xamante ni sax mu ngi koy dund mu mel ni Maty Trois Pommes nag daal dinay rek di rek a ay audio yoo xamante ne kii di Babacar Touré bu Kewoulo daal dina koy def ba léegi rek Adji Sarr tax sax ba Adji Sarr daal di amaat fit rek di wax sax ci audio yi nga xamante ne séq na ko ak MC Niass muy wax ne dara a ci lu métti moom moo daal di daal waaye ji rek muy confié wu gannaaw ba nga xam xamante ni sax moom dañ ko boole woon rek ca ña nga xamante ne dañ leen a accusé woon rek ca double meurtre nag daal di tax ba mu daal di euh, nekk ca kaso ba lu toll ci diiru juróom ñetti at ci loolu nag mu mel ni ñaari pompiste yu ñu faatoon rek foofa ca diwaanu Kébémer plus précisément ca fa nga xamante ne moom moo di géewul ab ci loolu nag mel ni ñoom nag gang ba juróom benn nit la ñu woon gannaaw ba nga xamante ni sax ñoom ñëpp la ñu yóbbu rek ca prison ba waaye nag mu mel ni moom waaja ba mu taxawee rek à la barre daal dinay rek wax juge ba ay kàddu yu muy dégg di wax sax naan daal dinañ koy taqal ci mbir mi te ci laalewu ci daal di koy tëj rek lu ci juróom-ñetti at waral sax ba moom ñàkk na waay juróom bu jigéen loolu lépp mu ngi ko fekk ca prison ba waaye tamit soxnaam daal dinay ñibbi dellu seen kër loolu lépp fekk ko ca prison ba ñu daal di koy taqal rek ci ab meurtre boo xamante moom taqewu ci ji wu ci fekkewul sax fu mu amee wax ci ngénte bu Oustaz Mouhamed Ndiaye bu Sen TV daal dinay nekk tamit ngénte loo xamante ne mu ngi ko amal rek ni ki tey ngénte lu neex lool moom nag ñëpp dal di teewoon rek ci li ni moom nag mu ngay def rek ay éloge kii di soxnaam di wax rek naan ci ab conférence sax la ko daal di xamee waaye nag depuis lors ca la ñu def connaissance aba sax na muy doone soxnaam mu doon koo xamante ni tamit soxna su ko dégg la mu sant ko gërëm ko lool lool lors de ñu daal di wax ci Didier Mo bu sunu gaal mu mel ni nag mu ngay waaj rek jël soxna ci loolu nag daal di nañuy sax fësal premier cadeau ba nga xamante ne yóbbu na ko bokk na ci benn million ci sunu koppar iPhone 12 ak parure en or moom Didier Mo nag bu sunu gaal 24 daal di koy jébal rek future femme am wax ci Sidi Diop euh, mi daal di euh, fësal rek euh, son wam bu yees bi daal di koy rek duppee kietu mu daal di nekk rek son mbëggeel décembre bi nag daal di nay tàng jër lool ci artistes yi ku ca nekk rek mu ngay génne ab album ngir rek ay fansam daal di békk ci fin d'année bi mu mel ni nag kii di Sidi Diop daal di nay dévoilé moom tamit ab son bu yees daal di koy duppee kietu Papa Diouf daal di nay àddu rek ci albumu frère di wali Balago Seck moom Pape Diouf nag. le leader de la génération consciente daal di apprécier bu baax a baax album ba nga xamante ne kii di petit frère ma di Wally Ballago Seck daal dina koy génne ñu daal di wax ci njoletaal mu mel ni nag jamono ji mu nga ca diwaanu Paris moom nag fala sax fête lii di anniversaire am entre copines ñu dal di dund rek mbégte bu baax a baax ci anniversaire u njoletaal bi mu daal di koy fête sax foofa ca réew ma France ca diwaanu Paris gonek seen petit gàlle yi kenn demul gannaaw ñu daal di fësal rek seen clip bu yees bi duppee ko Fiesta mu mel ni nag ñu ngay toggaat beneen ca studio ba nag ñu ngay gis kii di Aïcha Koné ak Bintu ñu nga nekk rek di imité ak nga xamante ne moom moo di Viviane Chidid ak Titi ñoom nag à travers leur belle voix daal di nañu rek wanewaat seen talent bu baax a baax copie à la perfection ki nga xamante ne moom moo di Viviane ak Titi ñu daal di jàll dem ca diwaanu Tivaouane wax ca leneen ab corps sans vie la ñu daal di fekk rek ah, ci ab poubelle loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax koor ba mu nga doon na commencé rek di yàqu ah, ñi di sapeur ak police dal di teew rek ah, waaye nag mu mel ni mujj ñoo sax identifier koor ba ndax kat dafa tàmbale woon na yàqu rek foofa ca diwaanu Tiwaawan ca la nga xamante ni sax moom moo di mbalit ja gannaaw ba nga xamante ni sax ay xale ñoom ñoo daal di gis li ni mel bu ñu jógee ca diwaanu Tiwaawan ñu daal di jàll rek ca pikin ab xale bu ndaw daal di am rek lu toll ci quinze mois ah, moom lañ daal di fekk rek ci ab foos ah, loolu nag daal di nekk lu doy waar ah, gannaaw nag ba nga xamante ni sax yaayam dafa daal di génnoon rek mu mel ni ba mu delsee nag gisul doomam fa nga xamante ne la ko tegoon ñu nekk nag di wër ca la nag ab foos boo xamante ni sax ñu ngi ko doon a gas pareegul la ñu daal di fekk rek koor ba muy flotté ca kaw nag mu mel ni daa mujj sax ñàkk bakkanam bu ñu jógee ca diwaanu Pikine jàll ca réewum Paris ab fusillade moo fa daal di am ñaari nit ñàkk ci seen bakkan am ñu ci jëlee ay gaañu gaañu loolu nag ca dixième foofu nag ba nga xamante ni sax ñii di takk der ya daal nañuy intervenir rek ci li ni mel fusillade bu métti tax sax ba ñu daal di cay faat rek ñaari nit ñu bëri daal di cay jëlee ab gaañu réewum Gambie gannaaw coup d'état bu fa naroon am rek loolu nag ci régime Adama Barrow mu mel ni nag daal di na nañuy rek. rek ko déjoué loolu nag CEDEAO sax daal di xamle rek li ni mel ba nga xamante ni sax moom Adama Barrow ba mu accédé ci pouvoir ba ba léegi rek daal di moo di l'armée ba ba nga xamante ne naroon na faa am rek daal di nañ koy déjoué jeexale ñii di Kala Alima ak Jalika ñoom la ñuy gis noonu rek très bien habillé en robe ñu nekk ay actrice ci maîtresse d'un homme marié ñoom la ñuy gis noonu rek les trois daal di am rek ab complicité bu yaatu en doox des séries rek ñu wane waat complicité waaye tamit amitié ba nga xamante ne daal dinay dox rek seen biir muy Kalla Alima Gadji ak kii di Jalika mbokk yi safoon doon ñu teewlu lii lañ leen andi woon seen acte du jour di leen jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bañ a dara suñu information jërë jëf